ah ah. waaw yow nekkati nekkati gi dañ koo ŋàmb. ah mooy yow yow ñii. ay léeg-léeg la Moustapha mbëkk mi mbas mi makki mi. Bapat mi Bapat mi. Eh, MD après il faut il faut nga jox ñu tableau bi parce que équation boobu après il faut ñu toj ko monsieur le professeur te il faut mu wax ñu m plus m égale voilà m au carré égale ça donne quoi. man dooma rey quoi. parce que il faut ñu wax ci. sa mère ki lay ñawal boole ma ak naa la booleex moom waaw ah, naa la booleex moom bi bi loolu du ñu boole naa la booleex moom bosu kon la sama bosa wala bosam la <laughs> cee yàlla waa baax na sunu xarit yi Sen TV l'officiel ngi wéy leen di ñu topp ah déet bu changé non damay changé kay yow yow actionnaire majoritaire nga kon damay mujj bàyyi de suñu papa Mbaye Ndiaye naa nuyu ko waaw ah, koy nuyu baax euh, suñu papa mbay Ndiaye asek naa waaw. ñu koy nuyu bu baax nag. waaw yow Fallou mi ngi ci groupe WhatsApp bi. yàgg na. ah sunu dem wala ñu taxaw tuuti. Ah, dëgg bëgg tey loolu ñuy may si àjjuma ci parce que dañu daan baaxee dañu defar ay lan xit sax la ñuy wax ay fàttali. Ah, waaw ci démb. ngën gi mbindeef. na ma daan doxalee. kenn du moom neex yàlla te noonu nga ubbee sànq sax parce que alxuraan. bu ubbee sànq dañ mënoon nga cee may aslëf rek gaañ. Euh, tey boo ñu may waxuma firaw na bi de. <laughs> <laughs> pourtant gis nga firawna boobu nag di ko wax di ko waxaat dafa baax. firawna waaw ñu xam ne doole doole doole de. Oh. Eh, yàlla mayewul dafa able. pour firawna ak Moussa. Hmm. di ko wax dafa baax. yàlla mayewul dafa ab dafa baax parce que yàlla moom xam nga ni foofu dafa aw na boppam. benn nguur rek moo dul jeex. ah baax. boo ko xamee rek noppalu. dafa am fii nii ci sous région bi benn dëkk ba amoon coup d'état. Hmm. nee nañ ma président wu dëkk ba benn shérif daf ko mosoon a ñaanal ne ko. Hmm. soo tëddee nanga nelaw. ndax ki lay daan juddoogul way ilaa ci at mii lay judd kon yow bu la neexee boo tëddee nelawal. juddoogul fi war màgg. déggoo ma de ilaa ci at mii lay judd judd bëggumaa tudd dëkk bi. kon am na fi tam. <laughs> xam nga li ma la. Mm-hmm. yow lu la neex defal. man maa la ñaanal lii ci sama barke maam. Mm-hmm. benn sërif. président ba ne ko sallallahu taala alayhi wa sallam yéen sërif yi kenn du yéen. sërif bi waxoo. ñenn ñi jàppee ko ay fo waaw. Mm-hmm. mu daal di toog. <laughs> bi hmm. sa ñëw jabar ji di génn te soldaar bi nekk foofu noonu ci biir palais bi dañ doon gis ak moom fulla ak fayda gi gaynde gi waaye nag euh, <laughs> l'acte de trop mooy keroog bi première dame bi di génn mu ne ko euh, euh, kii first lady demal nga changer lii nga sol ah, ndeysaan ah, bu gàtt la sol mu ne ko nga ni mu ne ko demal nga changé lii nga sol yow kilifa nga waay moom militaire bi de. waaw wax wax jabaru président bi <laughs> affaire bi am xiiroo ngaayew. mu ne ko dee doo fi génn. président bi génn mu ne ko kii du fi génn parce que lii aussi lii lii. première dame du sol omo mi omo sax dafa dafa day feeñ. na ko sol mu gën a wàcc. na wàcc. waaye gannaaw gi la président ba laajte kii ban at la judd. <laughs> ndax yi muy def daal. bi ñu ko waxee at bi mu judd at boobu la fa président ba toog sa waay commencé di ko bàyyi xel waa joojoo ko football. Eh. yow war nga xam man dëgg la sax. yàlla mayewul yàlla mayewul Pape Mbaye baat bi nekk lii à côté fii. xam nga foofu. baat bi ñu tëggee fii Sénégal. non xam xam nga loolu. xam nga loolu. xam nga loolu. Hmm. firaaw na ba kon dellu si na. ah moo tax ñii di xëccoo ay nguur ak yii yëpp yaakaar ne affaire yi. Mhm. xoolal dara c'est Dieu doon la le pouvoir. bu dee waaw kenn du ne déet. le pouvoir ne se négocie baax mhm. kenn du ko waxaale. ay kaa ñu teg yëfu caaxaan la. déggoo ma de. Mhm. poste député ak maire ci bokk yam ñi fi teg ñu ngi lay déglu. xeex rek xeex. waaye mburoog soow ñu ngi lay dégg waaye mburoog soow ak caaki rek nga laxa ci yam parce que fii ñaara fi ne ñii ngay juboo ñii juboo déggoo ma de lii. <laughs> man amee ay dara pour ma nekk député wala pour ma nekk maire. Hmm. il faut ma leen di côtoyer. il jéem a neexal Macky. waaw fichier bi ñoom ñoo ciy def ñu leen neex pour ñu voter kon Macky du falu. Hmm. détermination. Idriss Seck kon du gagné Thiès. Hmm. gagné Touba. Sonko du gagné Casamance soo rek li ko war. fu ne Macky dem na fa te bu sañoon fu ne mu gagné fa. président Macky Sall de ba muy jël ah, nguur gi eh, dafa wàcc ci terrain engagement la gars yi mënuñoo def ay transfert d'électeurs ba ba. yow kay li ngay wax ba convaincre waa dëkk ba kay mooy kii li. yàlla mooy def ci dëkk de àjjuma ji di ñëw il faut ma dellu a <laughs> kaay monsieur le maire ñëw ak ñun ma nga woon palais kana di lay def mu une palais di bëgg palais. waaw ndeysaan gént la woon nag gént. gént la woon. dégg loolu gars yi nag boo sàgganee. Hmm. danañu ajaat élection locale yi ba deux mille vingt lu li loolu. ni ñu doon expliqué démb ak ñoom Cheikh Sarr xëccataaw yi man da ñii yéen yéen non. mais kon mais Macky Sall aussi il faut mu am ñu wax ak moom. benn mënoo jàpp ay élection di ko aj di ko aj di ko aj ba muy juróomi yoon mais pour la. yëfi Secka. ajal ajal. Macky moom tey il faut waa réew mi wax ak moom. <laughs> uyul ajaratu mbay dégg nga vox pop bi ci gis nga xoolal Idriss Seck ak show bi mu def démb fële pale ba da ba waaw wax na boo ay mbirum Déthié Fall kontaan na démb idi xamal na leen ne mburoog soow mi kenn du ko yàq laa la wax mu saf sàpp ak suukar é eh, saf suukar te kenn du ko ñuulal ma ci leen jabet de dooraat na fa ay ay alxuraan démb jëlaat na ay engagement wane ne moog Macky mburoog soow waaw waaw mburoog soow kenn du ko xajamal mburoog soow dégg Vox Populi li ak ñun ci Idi Abdoulaye Diouf Sarr ramas boo nee moo amati de. barke yonent bi. couvre-feu fi mu ne eh, Abdoulaye Diouf Sarr nee na pour sauver sénégalais la lu leer laa la wax. dégg nga Sud Quotidien monsieur le maire ñëw ak ñun ci Macky Sall dafa mel ni dafa bëgg a jël communes yi jox ko opposition bi wala jox ko punkalim dàq. Hmm. ah kenn kenn daa xamul lu mu def nii lan la. di dàq rek élection yi. Ah, yow Amadou Ba góorgóorlu na. ba a mujj gi moom daa moom Parcelles Assainies mhm. gañe Khalifa Sall ndaka am nga football ko lii kay mooy xaaf ñëwal jël wala lii mooy Moussa si moom day gañewaat Parcelles jigéen soo moom mënuñoo Moussa ka mu tër ba Sonko du leen gañe mhm. soo demee fële ca Dagana Matar Cissé góorgóorlu naa góorgóorlu ba affaire commencé di ba gañe football na ko mhm. Omar Sarr kay xanaa day jëlaat comme place dafa leer Idriss Seck moom mooy borom Thiès mooy borom Thiès waaw boo demee Géejawaay nag non non journal bi bindu ko <laughs> man doom man man doo ma rey damay ah, man bàyyi naa sax. non doo bàyyi non doo bàyyi doo bàyyi jàpp doo bàyyi. <laughs> man damay laaj dong de. ah xam nga loolu lu ma laaj ko waa seen TV l'officiel ñoo koy laaj. non non non lii neexuma de. waa laaj. ñëwal ma fii baalu ma moom damay kii léegi. damay waaw baax na waaw waaw baal <laughs> indi loxo bi Diouf Sarr ne voilà merci delluwaatal fee voilà c'est bon voilà c'est bon boo taxawee nga wax ma c'est bon. <laughs> taxaw naa eh Bambey. Bambey Aïda Mbodj. Bambey Aïda Mbodj dafa. loolu moom moom moom biti la xanaa Mor Ngom kay Mor Ngom na yem ci ndàngal maam nga. loolu biti la fa rek mais Bambey moom. am na borom ay daay borom waaw. laa Lyon. waay waaw mais Linguère. Aly Ngouille Ndiaye góorgóorlu naa góorgóorloo góorgóorlu ba wàccee ñoom Aliou Dia ak ñoom Habib Sy dafa leer ba ci ndem si yàlla nga Aly Ngouille di gagné doweeru nguur hmm. tey bu moo koy rumbux ginnaaw yàlla maître yum la dafa leer journal bay wax ni waaye mais xoolal tey Mimi Touré même bu ñu ko gagné fii tamit hmm. Grand góor góorgóorlu na ba defaraat boppam ca kaw Kaolack ah, dafa leer waaw mii mais Macky dafa mel ni dafa bëgg jël communes yi jox ko opposition bi wa ilaa jox ko gars yi ndàq wa mi na gars yi man day man Macky daal xaaral man daal bis bu bis bu ñu waxee li mu bëgg dégg source a ñëw a ñin ci xoolal mm. xoolal mais yi nekk ci département wu Linguère yëpp ak jege ñaare Macky Sall ñoo organiser benn réunion fii ci Ndakaaru réunion secrète Aly Ngouille Ndiaye yëgul ci noonu moo tax journal bi lii coup d'état lay xeeñ eh, eh, nguy na jóg ci bopp attentat lay na jóg ci boppam waaw baax na dégg nguy sunu xarit la kër googu ñu doon wax ne doomu Baba Diop moo fa nekk mm. Ndaama Mendy mii di Antoine Mendy ndekete moom moo abboon kër gi doomu Baba Diaw bi doon fa doon fa def doon fa def moom tamit hmm. euh, euh, ab centre te Kara yëgul dinu <laughs> Serigne Modou Kara Mbacké réew mi quotidien nee na jéggalu hmm? réew mi waa léegi jéggalu na jéggalu na waa réew yàlla baax na lii quotidien ñëw ak ñun ci xoolal terewaat ndaje sol masque te boo sàgganee couvre-feu dana dellusiwaat loolu moom dana metti retour à la case de départ dana metti di dégg loolu dégg nga. Mhm. les écoles yooyu nekk gis nga. Mhm. commissaire police yëpp nee nañ leen dugg leen. Mhm. na contrôle bi tar Serigne Modou Kara nag nee na jégalu na yëpp daf ci mujj am sax kersa. moom borom diwaan nee na li gone yi dund ci fan yii daal jégalu na daal jégalu na kilifa diine jégalu na tamit kilifa yi nga xam ne ñoom leen dénk réew mi. le quotidien yéen kaay nañu bruit bi mu def la. ngal di bruit yooyu. la centre de redressement am yi def. général Kala ngi nii mujj naa wàcc. Hmm. dégg nga le quotidien yéen a kaay ñëw ñun ci wàllum corona gi. fuñ ci toll. Eh, surveillance. day xëy neexul application des mesures. day xëy neexul de contrôle yaa ngi nii couvre-feu sax Abdoulaye Diouf Sarr nee na dàquñu ko Diouf Sarr ne waaw dàquñu ko de. Hmm. ah non. voilà leaderu leaderu Benno Bokk Yaakaar yi lalal nañ tapis rouge Idrissa Seck mi lee. ak Omar mooy gars yi dem démb. dégg nga critique yéen a kaay ñëw ak ñun ci Pape Bouba Diop. Hmm, ndeysaan delloo nañ ko njukkal. suñu hmm. gaynde gaa ngi nii. fas yéene hmm. dellu si ci réew mi Serigne Modou Kara Mbacké nee na jéggalu na te nee na dootul defati dara luy déstabiliser dëkk bi. wala loo xam ne nag. dana la xale alhamdulilah dëkk doo jàmm ca gën. waaw dégg direct news dañ ñëw ak ñun ci campagne baa ngi nii gerte gi. cent cinquante mille tonnes lañ bëggoon daaw vingt huit mille tonnes dong la ñu am. chinois yaa ngi nii di jënd trois cent francs ñu ngi bëgg a rey ñuy yëngu ci wàllum ci wàllum gerte gi. chinois yi daal fi mu nekk nii mbappat bi daal ñoo fi ne. ñoo gañ a mbappat mi. bëre sans dóor. loolu tablo bi la professeur. fuñ ci toll. fu tableau bi toll. il di ko di lii daal di di jël kii ko de. équation bi plus Macky Sall gi nii égal bu doog soow. léegi suukar si. <laughs> léegi. idi ku ko yàq. égal. ku yàq ànd bi. mooy mujj probabilité mooy nekk lan. wax ko yow Idi plus Macky Sall égal Mburok Sow. waaw alors ki ko yàq ñi ko yàq probabilité bi je pense que. koo yàq ku ne. fooy laaj bi wala ñu bàyyi loolu nañu bàyyi ba la dégg. non non bu ko fii laa koy bàyyi. mënul dem parce que il faut nga wax ma kan ak kan ñoom ñoo ko yàqagum pour le moment. non non non Mburok Sow. wuyu ma. Déthié Fall ci yow eh. Déthié non non non bi inconnu bi daal man dama ragal ne inconnu bi Déthié Fall la. wala wala ñoom. Oh, oh. <laughs> kon wala man comprendre ma de. yow comprendre loo de. kon bu doon laa yam nii cinq sur vingt. Idi plus. gis nga ki nee na ma noppi sinon moins cinq <laughs> Aminata Dia <laughs> moins nañ ma cinq déjà. c'est équation moo wax égal. Brox Sow. boobu moom trouvé naa ko au moins. waa léegi. Brox Sow bi. ku yàq. lii léegi lan moo mën a yàq probable lan moo mën yàq Brox Sow bi. non non lan moo ko mën a yàq wala ñan ñoo ko. mën a yàq ñan ñoo ko mën a yàq. x laa bëgg a xam. X égal à Déthié Fall. déedéet non. wala égal à. kan ah man sama man man naa noppi balaa ñu may may mooy waat cinq mooy dix du ma ko am. yow kon monsieur le maire dara. waa léegi. léegi X égal. ah man Déthié Fall laa gis. non dama ne la X égal. a yàq bi kon yow comprendre doo Déthié Fall. léegi. non xaar calcul bi il monsieur le maire da ah. il dit plus. x égale. x égale. x égale. il dit plus. Macky. waaw. waaw léegi Macky égale. Macky non non non yow kon ko non non monsieur le maire non monsieur le maire. non eh, calcul bi kon naa nga bëgg a trouvé. mais x bi yow xam nga ko bu dox soow la. non non non moom x égal Macky Macky Idi. Macky plus Idi boo ko boolee kay mburoog soow la x égal mburoog soow bi. la mburoog soow la mburoog soow. waaw la mburu ki neen égal ki neen égal Karim Wade la <laughs> mburoog soow mburoog soow bi fan la jóge léegi yow mburoog soow égal waaw kay waaw moom mooy tey tey tey tey kay kon kay turbe naa sànq ici déedéet déedéet defal ndànk ay tur laa bëgg nga jox ma moo tax waaw boo nee mburoog soow égal waaw waaw donc. Idi. non non man mat rek laa aayoon mat laa aayoon. mat moo nekkoon sama fort. kon yow mënoo trouvé lii. et eh, trouvé naa ko di. je veux dire non. monsieur le maire. composant euh, euh, yow nag yaa ngi dem ci PC physique chimie nga dugg kon. composant gros son bi nga ma bëgg nga may laaj tey tey njàpp amul tey il faut ñu taxaw. non attends composant fu mu nekk yaa ngi dugg physique chimie. donc boo may laaj composant ñan ñoo composé brox sow mi. day metti parce que man ñi ma ci xam mooy Macky ah <laughs> Idi. alors mburox soow mi pour le moment ñan la ay as ba Abacar. fii li fi nekk moo bëri am na mat am na physique chimie mais itam di nga philosophe ci sud ba sud ba sud ba. léegi <laughs> non merci monsieur le maire ngir yàlla. philosophe moom waaw temps baa ngi dem dama bëgg nga trouvé ko comme ça leen di leen di nekk bu ma ñëwee nag ci laay indi Barth Bougane maître Moussa Diop. mooy équation boobu ak Sonko. ba mu il faut ñu régler ko. mais bii man trouvé naa ko. boo nee ma Macky plus Idi égal Mburok Sow. xanaa xamoo même Barthélemy Barthélemy. waaw Bamba Fall ak xaaf. équation la. boobu nag laa gëmale ni dina ko trouvé ci réew mi. ay multiple ay pourtant pourtant lii calcul ah, le maire fi lu ci desati. yow Mburok Sow. égal égal Idi plus Macky. waaw dama xamul ne suite bi da may laaj composant mburoog soo bi wala ñan ñoo équation ci réew mi yow monsieur le maire kon aayoo wala mat rek laa aayoon li wal fajiri bind démb ne Macky ngi préparé benn projet pour amnistier Karim ak Khalifa ah. mais léegi le pourquoi le pourquoi boobu lu ko waral kooku it équation la kooku mardi la jëm moom lay donné donc Mouro Idi plus Macky dafay am ay négociations yu muy donné yoo xam ne day dem ci ay lan ay amnistie ak non non tey njaabu gedd la tu arrives pas à trouver jaxeer gi yéen nee na yéen koo leen faale oh, oh. parce que lii lii lii du mat sax professeur yi dafa mu nekk ñu ngi naan waa lii lan la lii mais lii du mat littérature non lii il faut que ma indi kii monsieur Touré quoi bu IAM lii lii nekkul mathématique c'est simple littérature ça c'est un plus un égal deux la suite là mënoo ma wax lan la lii lii baa bi la kon non mais ça c'est lii lii lii c'est inadmissible lii lii lii lii li mat lii matu troisième ah. secondaire. matu <laughs> troisième secondaire la. troisième secondaire. Euh, euh, euh, la classe de première. <laughs> kon man nii nii nii nii lii du pour examen. du baccalauréat. du sax BFM. non lii lii que yegg na BFM. <laughs> yàlla baax na yàlla baax na ku mu faale.